السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكو أدونا السلام عليكم مبكو شمس تي في نجلي لنيو دي لنزيار دي بالو أخو بابا خبا خلين بار نيان كرو بيال سبحانه وتعالى مبولي نيو بار نيان كمو قدل فاني ويرل تيري ويوك ستر بي دفتران أدونا دفتران الأخرة ما شاء الله نيو نيوار رك كم نين كوي دفي ساسونة دونك نيو تي ندوغولي أولا بوم ندوغو باتريوت مكتو دين ندوغو باتريوتي ما شاء الله تايد نيو نيو تي لو خامنتني dañuy koy faral di ko tawat lu bëree bëri euh, li ñuy joxe nag baax na ci ki nga xamante ni man diggante ñaari way dencante muy wax ñu xam jëkkër ak jabar di nga nekk ci période boo xamante ni jigéen sa bopp dina tëju lool ci sa boroom kër dama koo liggéey dañoo dëddale lu xew defuma ko dara te pourtant suñu diggante mën la neexee woon jékki-jékki rek mel ni mën lay bañ a gis day am dinay am aussi tamit ci ku góor mu dem ci ku jigéen maanaam borom kër moom it soxnaam taxaw ko taxaw bu mel noonu dinay am dinay am également tamit ci euh, nit bërëb bu muy liggéey sa bërëbu liggéeyukaay waaw ak sa patron wala xëy na peut-être ña nga daan liggéeyal muy relation de confiance ak yu nu mel jékki-jékki daal nga nemmeeku ni wax dëgg yàlla problème am na ba di la stressé dinay amit également ci mbir muy lijjanti mu jékki-jékki rek lëj tàggatee mi dinay amit également ci business boo nekkoon di def moo xam ci commerce wala lu mu mënti doon nga gis ni njëlbeen mi doon na dox jékki-jékki rek bunte yëpp fay loolu yëpp da ciy am ala kulli haal ñaan a ngi nii jafewul yomb na lool te boo ci saxee ci kàttanu buur yàlla sunu borom di nga gis mu won la ci yoon bu leer nañ wan la ci fi ngay teg sa tànk incha allah mooy bàyyil ba suuf sedd comme ni koy waxee nga julli ñaari rakkaa so paré yaa def fatihatul kitab daal def staafirullaha staafirullaha staafirullaha nga def ko cent fois daal def ñetti salaatul ala nabi so paré nga def laa ilaha illallah la ilaha illallah la laa ilaha illa allah moom tamit nga def ko cent fois daal di defaat ala nabi ñetti yoon soo paree nga indi yaa allah ya allah ya allah cent onze fois soo paree nga tëjee ko ñetti salaatu ala nabi li euh, ma koy waxee saa su ne temps yi lu ma leen di jox lu nekk day nekk loo xamante ni ab kilifa moo ma ko jox te mu nekk loo xam ne bi ñu ko kilifa joxe ba pare jëfandikoo nañ ko wax dëgg yàlla biit bokk na ci lu ñu kilifa jox te bii sunu bàyyi maafu sew moo ñu ko joxoon moom it ngeen ñaanal ko borom bi yàlla subhanahu wa moom it yeesal njëggal ci moom yërëm ko te ko aljana temps yi bu ngeen seetloo yi may joxe yépp day nekk yu ay kilifa joxe waaye kilifa yoo xam dëddu nañ mu bëggit képp ku ci jël di ko jëfandikoo na nga bàyyi xel bu baax a baax kilifa yooyu ngeen ñaanal leen suñu borom yërëm leen te xaare leen aljana te xam-xam yu wér péng la wallahi wal quran azim xam-xam bu wér péng la lii moom wax dëgg yàlla man lu ma pratiqué la saa su ma demee ba stressé ba jaaxle wala dem ba am problème carrément sax même muy problème xaliss yu mu mënti doon honnêtement honnêtement musuma ko def ñetti fan te gisuma situation bi manam sax du ko sax mot mais man ma wax ñetti fan rek mais sa soo ko defee boo yeewoo suba suba suba xam fi ngay tek sa tan yalla xam nako ko su ko borom bi yalla subhanahu wa taala nango ku ci nek nak man sama principe ci walu ñaan koy waxati euh, nit ñi xam nañ ko moy kan dama japp ni ñaan bur yalla mo xey nangu tayit it nangu tamit comme lañuy def li yonam sallallahu alaihi wasallam sallam jàngale rek moy da ngeen di ñaan ba paré ngi wa antum muminun bi jaab sa di ko ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen am nan la ko mën a expliquer euh, ngeen gëm am wóolu voilà ngeen gëm to wolu ni limay ñaan ni day am bu ci am ben arrière pensée bu ci dute ndax borom yàlla subhanahu wa taala soxorul iñaanul te li wax sa su ne koo xamante ni nga soxorul iñanu ba paré lepp lo soxla yow xam nga ne am nako ba am li nga sax soxla soxlawul kon kooku boo ko ñaanee mënul lu dul may la parce que ki ngay ñaan du la may soit daf ko amul ou bien mu am ko soxare la waaye ki nga xam ne nag li nga ñaan am na ko ba maanaam du lim ci am kenn xamul nu mu kenn mënu mënu si koo takk beneen bi également xam nga ni iñaanu ko kay conclusion mooy ñaan dalay may amul beneen amul leneen lu ci mën a amul beneen alternative ñaan nga yàlla dalay may nam lay mayee kañ la ak nan la ak naka la moom moo xam donc ñu respecté ko bu baax a baax. jafewul julli ñaari rakka bu dee yow mi nga xamante ni dangaa nekk ci néegu sëy ba ci ki nga xamante ni yaa ngi nekk soxna soo xam bëgg nga ko takk yaa ngi ciy dute baax na baaxul wala projet booy bëgg a dugg baax na wala baaxul ba nit ñi di ci yàq sa xel di la duteloo lillahi wa rasuli defal li jafewul defal ñaari rakka nga def fatiha ba mu jeex nga def astaghfirullah cent onze fois daal def ñetti salaatul ala nabi so paré nga def la ilaha illa allah 111 fois nga def ñetti salaatu ala nabi so paré nga def ya allah ya allah 111 fois te jeku ñetti salaatu ala nabi baye sa bokk ak borom yàlla subhanahu wa taala ci kattanu bur yàlla da nga ci am lu leer nañ nañ nañ nañ nañ solution bépp problème na ci num gëna gën a euh nag ñu ngi jégalu nak ci cadre yi bu baax baax di nuyu ki nga xamanteni nak moy président Shamsu TV Shamsu Asfar moy soxna Ndey Assou ñu ngi nuyu diko ziar. Baye Mamadou Ndaw maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Mame Pathé moom sama partenaire la macha allah sama sëriñ la euh, Cheikh Sarr Ngumba ak képp koo xam ne rek yaa ngi teewlu jotaay yi macha allah di ñu encouragé waaye également saa su ne di ñu di ñu di ñu di ñu conseillé wax dëgg yàlla di ñu conseillé waaw ci lépp luñ dugg tamit ñu dugg ci macha allah ñu ngi ciy nuyu ñëpp di ziar ñëpp bu baax a baax. di waxit également tamit euh, encore une fois comme service yi fi am yu mel ni Chamch euh, TV Chamch as euh, comment dire Chamch Imo donc di yëkkatu ci wàllum immobilier wàllum bâtiment lépp macha allah terrain ak yëpp li ci nit soxla incha allah rabbi bu ñu contacter dinañ ci su sunu taw fee waa kër Cheikh Ahmed Tidiane garab yi bàyyi ko benn yoon li ñu nit ñi di xasee da ngeen bàyyi garab wallaahi musuñ ko musuñ ko bàyyi toppoon mm, ku seet léegi rek Ousmane Sonko waaye lépp nag am ci réew waaye également Chamch voyage également donc service la yoo xam ne ñu leen di mën di jox la Euh, di leen joxal dig daje kon suba salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.